salaamaaleykum mbokk yi ñu leen di nuyuwaat ba léegi ñoo ngi nii bii Tivaouane côté borom maam El Hadj Malick Sy ñu gis suñu benn papa ju baax di ko laaj tur bi ak sant bi ak foo jóge sëñ Ibrahima Seck dëkk Thiénaba noo gisee gàmm gi nii ah fa tabaarakallaahu xanaa kontaan ak am mbégte bu baax a baax a baax a baax ndax Seex Alxaaji Maalik dafa waxoon ni ala asimu laylal wiladati xisbatan ida lam yakun nax wala rami adulu Maodo ni allah dama ni yéen waa adduna bépp asimu na ngeen màggal laylal wilaadati guddik gi nga xam ni ci la Seydina Mohamed juddoo Maodo nag na ngeen ko def xisbatan ngir sàkku tiyaaba rek bu leen ko def ngir leneen waaye ci sart màggal googu fa muy mën a amee mooy ida lam yakun naxwal araami adulu Maodo ni na ngeen fexe ba lu araam bu mu ci bokk na ngeen ko def sellal ko te yàlla rek tax ndax ku ñu bind Seydina Mohamed moo tax kon soxna ci buñu dajaloo fi fa tabarakal dañu am mbekté am kontante maasa allah ndax dañuy xamni ne yonent bi nga xamni mo tax ñu bind ñu mom la magal bu dul woon mom yàlla du amal dara koku sidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamni way kat bi daf ko xad kaana nurun wala lawhun wala khalamun wala samaun bihi ila waxad fi ba yàlla di bind leeruk sidna Muhammad aljana amugul safara amugul asaman amugul suuf amugul dara dara dara dara amugul mu tax Seex Sidi Malik toppal ñu sidna Muhammad bi nekké leer با با نيوكو روبي كا موجو سا بامل با وانه اذ اراد الله نسأتنا ابانا من نوره نورا العالم العالمين مودني يونت بي صلى الله عليه وسلم افان موي نييو سي بو بيندغول مام ادم جيغنا فوكي كيراي اك نيار يو خامني مو فا نيكون دي صلي على ساجرين قبل ورا فعل بسبي 100 عام ربي الله ñu ne ko moo bindal fukki raay ban ak ban la mu ni bankal sa baaram ñu ne ko aywa mu ni minnatun min xabliha xisamun wa rahmatun wa sahadatun li mustalimi karamatun baadaha fi lhaddi mansilatun hidayatun wa nubuwatun fala taximi wa rifatun taatul mawla safaatuhu fiha tamamu li tarta bi foofu tey ñu ni Maodo mu ni rasulillahi bi mu jéggi fukki raay ñaar yooyu dafa duggaat yeneen fukki géej xuus ko ñu ne ko barak ban la mu bankal sa baaram waxaatihun abxuran abdoulaye moo ko jur abdoulaye saybata moo ko jur saybata hasim هزم عبد المناف هذا منام خصي خصي كلاب كلاب مرتا مرتا كحب موكجور كحب لواي موكجور لواي خالد موكجور خالد فهري موكجور فهري مالك موكجور مالك نظر موكجور نظر كنانة موكجور كنانة خصي مات موكجور خصي مات مدركة موكجور مدركة إلياس موكجور إلياس مدر موكجور مدر نسار موكجور نسار معد موكجور ما حد حدنا موكجور يونس سفر حاج مالك مني كل ما من يرن تبي ba weesu xadd naan li nga wax nekkatul dëgg ñu ko bindal mu ne muhammadun nuuru abdillahi saybata hasim abdu manaaf ma xaqu sayihimi kilaba murata kahab lu wayn wa xaalibin wa fihri malik nadril karami kinanatin wa xusaymatin wa mudrikatin ilyas ma mudaril hamra sirrihimi hadid nisaran ma ab man yujaawidu adnana fataksibu xad jaamina alami dëgg la waay ñu ne Maodo mu rasulullah yu góor yi ñëpp xam kan mooy seen yaay ينكو بندل مني أيوة فهونا فاطمة سلمى وحاتكة هبة وفاطمة هند لهن سمي وخصية بنت سيبان وماوية بالواوي سلمى وليلى حد لم تلمي منهن جندلة لا تنسى حاتكة وبرة ثم بنت سحد ذي الكرم سلمى وليلى رباب سودة ومعدة وما عدد حل أبيات تختنمي ñu ni cheikh sidi haye malik mu ni xamna amina mi jur sayyidna mohammed xamna kam lay papam ñu ni ko mawdo kan mo jur Seydina mohammed mu Amina moko jur ñu ne ko Amina kuy papam mu Wahab moko jur ñu ne ko Wahab kuy papam mu Abdul Manaf moko jur ñu ne ko Abdul Manaf kuy papam mu ne Suhrata ñoo jur mu ne Suhrata kuy papam mu kilab moko jur ta kilab mami Seydina mohammed la kon Amina ak yonent bi nekata ay mbok lañ ñu ne ko bindal mu aminatu bintu wahab ibn abdu manaf ibn surata umul mustapha alalami kilab wa qul fihi intisabu ma aatikatul xëyla hindun umu wahbi bi soxna ci ci gatal non la ko rasulullaay tënkee ba wax yonent bi kagn la faatu ñu ne ko bindal mu ne bi mu amee 63 ans moom Seydina Mohamed ci la faatu bi mu demee Madinatul Munawwara ci atum fukk ak benneel ba ci la faatu ñu ne ko bindal mu ne xam naa ban weer la xam naa ban néeg la xam naa ban heure la xam naa ban bis la. dëgg la waay. ñu ne ko bindal mu ne waxaama uhdiya muhtaasan ala jalalin daxaahu fi safarin mawlaahu lil karami moo dañuy rasulullaay 14 jours la feebar. ñu ko ban février ban bis la mu ni talaata allarba alxamis ajjuma samedi dimanche altine talaata allarba alxamis ajjuma samedi dimanche sen sopp ba noppalu muy sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam kenn dëgg la waay ñu ni Maodo mu ni xam naa xam naa kan moo doon sang Seydina Mouhamed keroog ñu ne ko kan mu ni Seydina Aliyu moo doon sang yonent bi ñu ne ko lan muy dañuy màgg ñeel na borom bu yëkkatiku bi ñu ne ko bindal mu ni jalaala rabbin rafihin kaana axiru ma takallama al mujtaba min ahsanil kalimi ñu ne Maodo mu ni xam naa kan moo mujj ci bàmmeel ba ñu ne ko kan mu ni Bilal ñu ne ko bindal mu ni wabnul hamamati rassal xabru yabda'u min wijaati rahsi summa al xalbu du darami Maodo ni nag ànd ak lii lépp nag ki ma ko defal kenn la muy yaakaaru jaam ñi sëriñu sëriñ si ki nga xam ne mooy buntu yonent bi mooy xalifaam kan mu ne ilahi bi qutbi arifina imamina rajai wa xawsi lil ilahi wasilati xitaami nisaamin lil wilayati jumlata bihi artaji al xufrana min kulli zallati bihi artaji fatha al maxaaliqi kulliha wiqayatuna tijaani min kulli sidati Maodo ni kenn rek laa yaakaar mooy sama sëriñ muy Cheikh Seydi Ahmad Tidiane sërif radiallahu taala wa moy buntu yonent bi moy khalifam moy léppam moy ki nga xamni ni won ak mom kenn du xam rasulullah ko koy cheikh si ahmed Tijaani kon soxna si fatabarakallah la waja waxon rek man do doo sirril ilmi wal irfan ahmadu hayn hadrat al imaani wa hadrat al islam wal ihsan kon gisitum khairan wa kufitum saran wala la khidush ma baqidum duran xamna ñu yemale ko foofu rek ndax yitte yi bari na fatabarakallah amna fuñu jëmon waye gis la xamni li nga yëngut fatabarakallah motax ñu ne la ma sha allah donte ñaari minute la sax ñu sànnante kaddu fa tabarakallah ak seydina Muhammad sallallahu alayhi ndax moo ñu fi tax a daje fa tabarakallah kontaan nañu baax yal na yàlla kontaan. waaw kontaan nañ papa ji leeral na lépp macha